asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu suivre ci seen site internet luttetv.com tey mardi 2 ñu ñëw ak yéen ci yi comme ni ngeen ko amee chaque jour moo koy seeq ak Bokar Kor Mama borom jaxaw ak siin ak mbuur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal rawatina mbokk internet Lutte TV yëpp ñëw leen di nuyu di leen moom Lamine. Hmm. <laughs> lu dul coono mbuur moom moom ma si dara mbuuru baa Saliou la. waaw coono nag du mën a ñàkk ndax yàlla mu bind doomu aadama ci coono. ñu ñëw ci yéenekaay yi ànd ci ak ñi ci doon àndal muy MSD Prestige MSD Impact oto la ñuy jaay di luy oto di jaay tamit ay pièces détachées waaw ñu siy ànd ak MSD Prestige ak MSD di jaay oto di luy oto di jaay li nga xamante ne moo di pièces détachées seeni oto ñu koy jële bitim réew di ko andi fii di ko si ay bato ñoom dawaluñu si bato lañ ko yëb andi fii dédiwaañe ko di ko jaay si ay njëg yu xewal dañu luy tam ku am soxla wala am programme wala am ay manifestation boo fa demee ñu luy la oto nga dox say soxla dem delloo ko waaye tamit dañu jaay pièces détachées muy MSD Impact seen site ku bëgg ku bëgg pièce wala nga am pièce ba fa demee ñu jaale pièce bu ñu amul defaral la commande bi livré la ko dans 15 jours Lamine. livré ko la ko dans 15 jours ku soxla seen numéro téléphone nan nga def ñu nekk Brésil ak li ko war ndax jënd oto Brésil ànd ko Sénégal day metti loolu moo tax MSD Prestige ni loolu moom dinaa ci def ay samay pexe ba képp koo xamante ne Brésil nga nekk wala Argentine ak dëkk yu ko wér yëpp nekk sénégalais. wala Gambien wala Guinéen boo soxlaa boo mu woowee ma lijjanti la oto. waaw ñi féete Brésil wala euh, Amérique latine bi rek da ngeen di def plus 55 119 64 69 56 42 ñi féete Dakar Afrique ak li ko war rek da ngay def plus 33 Lamine waaw da nga def plus 221 33 835 loolu mooy numéro MSD Prestige ak MSD Impact ñu ñëw ci journal sunu làmb bi commencé ko nag ci bu démb bi ak bu tay bi bi nga xamante ne moo génn démb ci lënd bi mu wane woon ki nga xamante ne mooy Lac 2 ak Boy ñoom ñaar ñoo war a bëre nag le 13 juillet fële ci arène nationale bi ginnaaw bu ñu defee seen fas à face nag ñoom ñaar am na yoo xamante ne digg nañ ko ay nit mooy xeex boo xamante ne du jeex mukk waaw mooy xeex boo xamante du jeex mukk Lamine fi mu toll daal ku si nekk daal Lamine nee nga ne wala ku si nekk fab nga say kurpañ dencal sa morom di xaar la treize fas yéene ko koo jébal wala fas yéene ko jox Lamine mm. mu mel ni nag Lamine combat boobu daal nit ñi ñi foogee woon wala nit ñi ñi yaakaaru ne Lamine dafa low combat bu saful xorom saful Dakar waaye añu ngi xaarandi Lamine combat bii ni nekk njambaan moo tax nee na dina metti lool te yàgg xeexam dina metti lool te te yàgg Lamine boo ñaa xam naa ne da koy andil keccax ak yi ak ak rek mu mel ni daal Lamine jamono ji moom combat bi ku si nekk Lamine euh, jàkkaarloo nga ak sa morom wax nañ nee nañ digg nag la digg bor leneen loo ni Lac de Guiers ko nee na moom Boy xam na ko bu baax a baax a na lu muy saf waaw Lac de Guiers mu nekk di wax rek nee daal li mu xam ne mooy ko ne Boy Niang moom xam na moom mooy kan nee na affaire bi lu mu métti métti tamit moom tamit moom Boy Niang daal xam na ki muy bëreel mm. waaw mu mel ne nag loolu la Lamine wax la loolu wax la waaye Boy Niang moom comme tontu du forox tontu na ko moom Boy Niang nee na su bëggee rek dina bagaar moom moom moom Lac de Guiers numéro 2. waaw Boy rek nee na nee na Lac de Guiers moom dama ko si fekk si rek ñu ñu fas yéene rek Lamine jàkkaarloo fëggante ku nekk xam kuy sa morom. na nag day taxaw moom maître du ko arrière. waaw nee di ko xaar rek nee na moom ak lu munti demee moom si moom la des. day dëggal boppam day taxaw xaar ko kon Lac de xeex bi muy woote bu dee moo ngi ci moom na ñëw dëggal boppam ñu xeex loolu ay waxi Boy Niang la loolu ay waxi Boy Niang ba léegi dañuy des ci journal lu lënd bi wan nañu tamit ki nga xamante ne mooy Forza ak Reug Reug temps yi nag seen coow ñoom ñaar bari na chaque jour presque léegi journal bi dana bind ci ñoom net bi nag nee journal bi jàpp na ne instant bi ñu ngi koy yëngal ndax keroog ajuma dama leen woo ku ci nekk wax sa xalaat ci combat bi waaw waaw ni nga ko waxee rek Lamine jamono ji daal mu toll nii Lamine jaar combat bi jaaroon wala jaarul ku si nekk daal yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yor say kaba rek xam nga kaba ku si nekk yaa ngi yor say kaba di ko sànni sa morom mu mel ni nag fi mu toll nii Cobra pare na pour bërëk rek waaye rëg rëg daal dafa jàpp ne jamono ji du ñoom ñaar kii moom dafa mel ni bërewul wala gëñ naa bëre xamuñu ba xam dafa bàyyi wala bàyyiwul ba muy bàyyi ci moom nag xëy di wax ay dëggam ci li nga xamante ne mooy cent bi nee na boobu moom pikinité bi moom ay wax la rek comme ni mu ko waxee woon keroog ci journal La Tribune ni mu ko waxee woon keroog ci journal La bi rek Lamine bàyyi ci moo nekk di wax rek nee daal pikinité bi ñuy wax wala cent bi daal dafa mel ni loolu moom ay wax la noonu rek bàyyi ci daal moom gisul ne Pikine euh, yi ànd nañ cent pour mbër yi moom ànd nañ cent pour cent muy VIP yi ak mbër yi nga xamante ne ñooy bëri bëri simple bi ndax wane ko keroog fële ca Mbour moo tax journal bi wan nañu photo Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 ñu ngay fecc wan ñu photo Baboy ak Bombardier ca ñoom ñaar ña ngay fecc mu mel ni foofu moom toj na rajax foofu Lamine tojoon na rajax mu mel ne bi ñuy bi ñuy jour final bi la Lamine dimanche bi nga xamante ne ni Dakar ak Thiès ñoo doon def final bi mais vraiment VIP yi wàcc nañ fa euh, yëngal nañ vraiment fecc nañ yëngal nañ def nañ fa sax sabar daanaka vraiment gis na gars yi di sàllar ko gars yi nañ ko xaarandi rek si si vidéo TV yi Lamine sàllar ko lañ fa def ba ni saay journal bi wan nañu Modou Lo ci ginnaaw wan ñu Eumeu Sène wan ñu ki nga xamante ne mooy Lac 2 ak booy Niang waaye nag seen i palmarès ci lañ ñu ñëwal palmarès Modou Lo 19 victoire la am 3 défaites ak benn nul maanaam bëri na 23 combats 19 victoire 3 défaites benn nul wan nañu palmarès Eumeu Sène 10 victoire la am fet défaites 2 maanaam bëri na 19 combats kon ah 10 victoires 7 défaites 2 nuls mu war ñu <clears throat> ki nga xamante ne mooy Lac 2 12 victoires un combat sans verdict 2 nuls 2 défaites moom tamit dafa mel ni bëri na 17 combats lii yaakaar naa 17 combats la 12 plus 4 plus waaw 17 combats 12 deux cent 2 nuls 2 défaites ak benn sans verdict mu war ñu palmarès Boy Niang 13 victoires ak 2 défaites mu mel ni. palmarès yi ñoom ñaar xaw la sore ñoom ñaar seen victoire xaw la sore moom Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2 ñu ñëw ci journal bi nga xamante moo génn tey ci mardi bi Modou Lo la ñu wanaat rek ak ki nga xamante ni mooy Eumeu seen ña joxante loxo lii nag France la woon bii joxante loxo France la woon démb joxante wuñ ko fële ci TFM waaye taxaw nañ o waxtaan ñoom ñaar sànnante ay xeer bokkoon. waaw Lamine joxante wuñ fa loxo waaye taxawoon nañ waxtaan wala toog nañ jàkkaarloo waxtaan Lamine ku nekk rek Lamine dànkaafu sa morom ku nekk am ay kàddu yoo jël jëmale ko si sa morom mu mel ne combat bi Lamine moo nekk combat royal bi war dox si diggante Modou Lo ak Eumeu Sène. 28 juillet waaw war am le 28 juillet mm. xamaguñ nag ndax arène nationale lay nekk wala Léopold mais daal am nañ yaakaar ne war na mën a nekk sax Lamine arène nationale Lamine pourquoi pas waaw dinañ ci ñëw ci biir yéen kaay yi Eumeu tamit moom la mu wax nee mooy daan Modou Lo la bëgg instant bi pour venger wu waaw pour venger wu Eumeu Sène moom nee ku ko dóor tamit da koy abal yet bi mu fayu rek mu mel fi mu toll nii comme Eumeu comme Modou Lo dóor na ko tamit taxawaayam wala lépp lu muy yëngu wala lépp lu muy lijjante ta jamono ji rek mooy fayeeku fomp gàkk-gàkk bi nga xamante ni moo moo takk si moom muy victoire bi Lo am ci moom Modou Lo moom na dafa jot instant bi mu récupéré couronne bi ndax laaj nañ ko Eumeu ndax da nga yóbbu couronne bi mu nee na couronne bi dafa koy téye ba doyal jox ko ay rakkam Modou Lo ni ko loo moom ngay téye ndax couronne bi moom moo ko ba koy téye dañ koy jël ci say loxo. loolu moom ngay téye dañ koy jël ci sa loxo loolu ni nga ko waxee rek waxi Modou Lo la mu mel ni Modou nag jamono ji moom tamit dafa dafa taxaw temm ngir récupérer li nga xamante ni moo di couronne bi pour récupérer ko nag di faaw faaw mu yoon yàgg nañ yoon yàgg danañ ci ñëwaat mu wan ki nga xamante ne mooy Boy Niang ma nga yor ab dàllam di di xool xamoo kan lay xool li koy suma jumul combat ak Sa Thiès la Lac de tamit ma nga yenu njaqam diggante njaq kii euh, ni ñu koy waxee de leket leket mhm. ndox xorom bone ak yeneen ak yeneen saf na sàpp ci combat bi diggante Boy Niang ak ak Lac de Guiers waaw Lamine xam nga boo seetoo nag loolu nag loolu yëpp Lamine dafa ànd ak làmb liñ lim nii yëpp Lamine dafa ànd ak làmb parce que làmb cosaan la te cosaan mënoo wax cosaan te boole woo si loolu noonu Lamine leket muy leket leket si boppam rek origine am Lamine dafa nekk lu yàgg yàgg nga xamante ne depuis cosaan ba tey lépp lu ñu lii rek leket la si bokk ndox tamit lamin ndox moom moo jiito si lépp ku mm-hmm. koy sax ndox nga njëkk a ndox tamit lamin nu baax baax baax la mbaxana tamit gis nañ mag yu mag ñu baax ñi dañ dañ daan yor mbaxana mm-hmm. paay mm-hmm. yow rek laa gisul nga nga dul nga dul ba sax am boo demee ay ndaw lañ sol mbaxana mu mel ne daal lamin làmb ji daal na si sàpp saf na ci sàpp kii na sàpp ci làmb ji fan yi muy rëg rek tontu na tamit ndax dafa daan ki nga xamante ne moom moo ko daan waaw Lamine li ni nga ko waxee rek euh, kii moo nekk di wax rek rëg-rëg maanaam combat bi nga xamante ni digganteem ak Forza ñi ñaa ngi naan lam di ko lam-laamee mu mel ne nag jamono ji daal rëg-rëg nee na ki nga xamante ni moo di Forza ndax daan na ki ko daan xam nga moo tax daal fi mu toll moom nee na ci kaw lay xool ñeneen day visé waaye du moom ñeneen lay visé waaye du moom Bombardier journal won nañu ko mook selemele moom dafa mel dañoo kontaan lool loolu moo tax ñu ngi doon jibile bi Thiès jëlee li nga xamante mooy drapeau chef de l'État waaw bi ko Thiès jëlee Lamine parce que Thiès mu mel ni mu ngi koy door a jël Lamine si vingtième vingtième édition bi mu nekk la nga xamante ni la Thiès def détrôné Dakar bi nga xamante ni mu détrôné woon Fatick daaw mu mel ni daal euh, ni nga ko waxee rek Bombardier tamit kontaanoon na si loolu parce que comme dëkkam moo organisé région bi Thiès jël ko la mel. Ibou Sène petit production sama xarit moom tamit journal bi wan ko moom pare na instant bi pour li nga xamante ne mooy ay ay affiches yu neex saison bii di ñëw moom petit. waaw ni nga ko waxee Lamine petit production wala nga ne Ibou Sène rek sa doom lay borom borom Bambey séeréer borom Ngoy Aliou Sylla ni nga ko waxee rek moom fi mu daal jamono ji nee na pare na daal pour déwén Lamine mu mu décorer sa ay affiches yu neex a neex a neex a neex. mu décorer sa ay affiches yu neex a neex ay affiches yu neex a neex mi ñu xaar waaye Alioune moom nee benn combat dootuñu ko organiser fu dul arène nationale ba ci kaw ci kaw gàttal loolu ku ko bëgg xam la mu cee teg da ngay dem jënd journal sunu lamb mandiwaat ay leeral rek combat Modou Lo ak Eumeu Sène moom xajul arène nationale ba te du fa amee promoteur bi démb wax na ko nee na fële lay amee ci amitié waaw ko waxee rek Alioune Alioune Sarr mi moo jiite CNG ne mooy ko ne benn combat duñ ko fi tëgëri te nekkul arène am na si droit moo njiital CNG euh, nee na waaye nag dafa ne waaye waaye bi tamit ni nga ko waxee rek. ci kaw waaw ci kaw li li leer ba leer daal mooy ko ne Modou Lo Eumeu Sène Abdoulaye Diop nga xamante ne moo ko tëgg wala Moussa Diop Moustapha Diop mi nga xamante ne moo ko li xam ne rek mooy ko Modou Lo Eumeu Sène xaajul arène nationale de am amitié la soxla xëy na dina def ay démarches dina def ay jéego pour. na ay démarches bañ nangul ko ko moom démb confirmé na ni Modou Lo Eumeu Sène amitié lay amee. waaw kon ni nga ko waxee kon confirmé na ne Modou Lo Eumeu Sène fa amee kon ñu ngi siy xaarandi Lamine combat bu neex a neex diggante Modou Lo ak Eumeu Sène. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ñi nga xamante ne ñooy tiitaroo li TV point com di ko safoo ñun tamit ñu ngi leen di tiitaroo di leen safoo di nuyu waa xew-xewu làmb ji fans club Lamine. fan sa club Bokar di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Ramdan Ramdan nag léegi moom ñëpp confirmé nañ ni moom fàq na moom ndax États-Unis mënu faa toog boobu ba léegi di a ay balaan di tegale moom Ramdan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu mobile di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Babacar Diop président maa jàppal ma jàpp mooy patron mobile Marcel Diagne patron bébé Birahim ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Abdou bu xarañ loo Mame Balla Gaye Italie waaw Lamine ni nga ko waxee rek di nuyu sama grand frère sama lépp di layti seen borom mbéléngi sama grand maam Waly seen borom ñaaxaar maa koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu Madou seen cosmétique tamit maa ngi rek di ko ziar sama frère borom parfum yi ñoo ngi koy nuyu Lamine di ko ziar a baax fu mu dëkk Kër Massar waaw waaw moom nag xaw ma sax nag Kër Massar la dëkk en ah, ak Leyti Sène waaw waaw ak dëkk waaw di nuyu nag Baye Saliou Ka borom Espagne vraiment bi ñu demee Mbour xam nga rek waaw moo ñu jël en charge vraiment ñu ko siy sant di sant waa këram yëpp ak doom ndeyam Baye Fall Gandiaye di sant nag Lamine ñi nekk euh, Espagne yëpp képp kuy bëggali TV te nekk si diaspora bi daal ñoo ngi lay nuyu lay ziar di am contentement ci yow Lamine ki nga xamante ne mooy ñu ngi koy nuyu di nuyu Ngom Ngañ Ousseynou Faye ngi koy nuyu di Seydou Traoré Abdoulakhar Kare Lamine Ndiaye sama tooma ñu ngi lay nuyu di nuyu Adama Ndour Wakana Fall bëgg nañ la lu bare bare bare di nuyu ki nga xamante ne mooy dañ kumpa Omzo rek ak Omzo bu Garga tuuti yaay Sarr ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Cheikh Bass borom Kër ma Massar ak Petersen ak Sénégal Mor Jaxate ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu Pape Thior Ndoye la Pikinois Xaadim Fall Touba Guèye Teranga Abdou Fall ñu ngi lay nuyu Mamadou Li ñu ngi koy nuyu di nuyu Serigne Diagne di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Pape dawda ak Mamadou Ndiaye Yoff Seydina Aliou borom jaas yi. waaw Lamine di leen nuyu rek di leen ziar rek di nuyu ki nga xamante ne nii Lamine moo di moo di 650 sama frère Allé këram borom kër Massar maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax. di nuyu di nuyu militaire sénégalais. Jamaïcain bu fi nekkoon ni Kadhafi gauche droite boobu laa leen ne kan ak kan mu ñu ngi koy nuyu moom tamit di nuyu Khatab Diouf di nuyu Demba Diop Pape Demba ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Serigne Assane sar mooy tuuti yaay Sarr rek di nuyu lamin Thiam Alassane Ndoye di ñu fàtte tamit ki nga xamante ne mooy coach su jabong ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit Mamadou Ali Ndiaye champion du monde ak sama xarit borom Gambie Gils borom hôtel Jant bi ñu ngi koy nuyu bu baax. di nuyu tamit ki nga xamante mooy Abdou Darame Matar Bousso ziar ñëpp bokkar di jox ñëpp rendez-vous demee suba incha allah kon pay per mhm. ay xale ko créé c'est la génération consciente c'est continuer ba faw xamante ne ñoo nekk Sénégal TNT ngay jaar ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi sa carte bancaire ngay yor dugg seen affiche point com seetaan di wax tamit sama supporter nekk extérieur yëpp lañ ñëw ñu jënd code yi yéen waa diaspora soxlawul nag ngeen di jënd code benn yoon gannaaw leen seen carte bancaire. man Bambaly Seck dina naa sama code daw leen jëndi gaaw seen i code. dañuy toog ba dernier moment nañu teel a jël suma ay disposition ndax ma wax leen ko fii ñoom duñu leen ko ñeme wax làmb ji bu amul pay-per-view dee na chance ngeen nam de jàpp leen ca de mooy leen ca. <laughs> lu leer laa leen wax. làmb deewoon na presque. waxuma dee sax waaye du ko doon rob ñu ko doon denc gas nañ ba ko war denc ak PPV bi mbër mën na fay ko du am télé. ñëpp a koy amee nag ci seen affiche point com.